fas yéene di ko yéen ci seen xikmatul mi bi ñu leen baaxoo andil bés bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou si di leen ko defal ñoo ngi àddoo fii ci mahad xikmatul yawmi li tarbiyal islamiya wa taalim markas Cheikh Ahmadou Bamba nekk Touba Daaru Tanzil téléphone 77 633 77 56 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy bégal leen ci tolluwaayu liggéey bii nga xam ne ni euh, sunu borom tabaaraka wa taala moo ñu ko boole ñu ci liggéeyal Cheikh al di ci liggéeyal jullit ñi di ci liggéeyal lislaam di ci liggéeyal alquran te yooyu yëpp boo ko dajalee rek muy benn mooy liggéeyal sunu borom tabaaraka wa taala di leen bégal ci ànd gi nga xam ne da ngeen ko ànd ak ñun waa daara Hikmatul mi ci liggéeyal lislaam Euh, te du ngeen ci xaddi du ngeen ci tàyyi te loolu lépp ñu koy woowee xidma xidma mooy li nga xam ne nii moom la fi sëriñ Tuuba feddali te royee ko ci euh, saxaaba yi bi sallallahu alayhi wa sallama ñoom it ñu jëlee ko ci njàngaleem yonent bi te loolu mooy lan mooy liggéey boo xam ne ni da koy def ngir yàlla jullit ñi di ko jariñoo lislaam di ci yokkoo te séentuwoo ci fayub mbindeef yi ak seenuk cant waaye ngërëmul yàlla rek nga ciy sàkku te ngërëmul yàlla wa ridwaanu minallaahi akbar mooy li ëpp solo lépp moo tax Sëriñ Tuubaa day wax ne ab murid dara warta doon yitteem loolu sàkku ngërëmul yàlla isil muridu laa yuridu abada xayra irada rahmani aysa qasada dara waru ko yitteel loolu ngërëmul yàlla kon nag eh, ànd googi nga xam ne da ko ànd ak nun di eh, eh, jël seen wërsëg yi leen yàlla wërsëgalee di ñu ko jox dafa jaadu waxtu wu nekk fuñ ci tollu ak luñ ci def ñu leeral leen liggéey bi fu mu toll ndax kat am na kilifa gu baax gu doon wax ne eh, taalibe yi dey neex nañoo àndal lool ndax li ngay def rek mooy dee leen laaj mën luñ mën dee leen laaj luñ mën te di ko def fu ñu xam kon nag jamono ya nga xam doon nañ soññee yokkub daara ji te ngeen xir ba jox ñu ci lu ëpp lañ soxla woon ñoo ngi leen di bégal ci ne mbaar ma noppi na ba ñoo ngi koy jaruñu waaye eh, la ngeen ci defoon dafa des des woo xam ne nii tax na bi ñu fi ñëwee fan yële ne sunu yittekat mooy ñu amaat yeneen daara ci Touba yittoo jooju suñu borom faj na ko ba bis ni tey muy altine juróom-ñetti fan ci weeru gàmmu yi lañu demoon Touba. doon lijjanti makkaan moomee mu nekk daaru tanzil ba yàlla dogal na am nañ ko muy kon ak centre ak Cheikh Ahmadou Bamba euh, institut Hikmatul pour l' éducation et l' enseignement islamique centre Cheikh Bamba Touba kon noppi na ba ñoo ngi koy waaj a ubbi gaaw bi ñu jëm incha allah kon daara Hikmatul Yawmi am na ci Touba incha allah ñoo ngi ñaan mu gën a yaatu te daj fépp te ñu bokk ko fekkee sëriñ bi itam dem nañ ci moom ak Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahullahu gisanteeg moom gisante bu yaatoo yaatu mu am mbégte lool ci liggéey bi mbégte moom mu am nag ñoo yéen a ko bokk ñu xamal ko tolluwaay ak wax dëgg yàlla ak ñaanam ak ndigalam ni mu barkeelee ba ñu agsi fii waaye nag ñu xamal ko bëgg-bëgg bi ñu am muy dañoo bëgg lu yaatu loo xam ne liñ bëgg lépp dana ca xaj ca Touba mu xamal ma ne ma dees na leen ko jox waaye nag lu jiitu loolu dañoo wutaale fu yaatu foo xam ne nii barab bu mucc ayib boo xam ne eh, kilifa ga ko liggéeyoon da koo liggéeyoon ngir daara kon dafa mel loolu pàgguteef la mbaar ak lépp nga fa nekk waaye wu yaatu la woo xam ne nii ëppee na wii ñu nekk ci cees ñaari yoon baa ñett wanag yàgg lépp doy na sëkk lépp bari na macha allah jël nañ ko itam am nañ contrat joxe nañ suñu caution fay nañ tamit juróom benn weer ci kanam bu ngeen gisee waxuñ leen ko nag mooy la sëñ Salif waxoon joxe ba dafa jiitu woon laaj bi ndax daara ji ubbi dañoo ubbi woon xëtu jaayante juróomi junni ci lañ jëlee kër gi ci lañ jëndee matériel yi yëpp ci lañ fayee woon juróom benn weer yu jiitu am ci contrat kon loole def nañ ko ci Touba waaye kon lañu fa dese kon mooy matériel yi nga xam ne ni mënta ñàkk lu mel ne ay frigoog ak yeneen ak yeneen waaye tooluwaayu liggéey bi daal moom mooy jël nañu makkaan moo xam ne daaraa ko taxawoon a jóg kër gu rafet gu bees goo xam ne ni mbaar ak lépp nga fa ak wanag yu doy sëkk dañ ko defaroon ngir jànguwaay Ah, ah, fay nañ suñu caution fay nañ suñu juróom benn weer yoo xam ne ni fii ba eh, mars du nu fay incha allah mars 2021 kon nag loolu sant suñu borom tabaaraka wa taala alaala kon nag la ca des mooy incha allahu eh, bëgg nañ ko ubbi gaaw ngir tàmbale liggéey ba fawee ca Touba kon nag la nga xam ne nii moom fa liggéey ba toll mooy loolu kon nag ab sanc nag moom ku ne xam ne ne aajowoo na yu bari ndax euh, xottu kër moom lañ ñu jox kon aajowoo na ay jumtuwaay aajowoo na ay matuwaay yoo xam ne nii kat bu dong yi ñëwee danañ ko fa fekk kon loolu nag koo ci xam ne ni bëgg nga cee def tabal sa barkeelu itam nga def ko ci numéro daara Hikmatul Yawmi bi te mooy 77 633 77 56 am na Orange Money am na tamit Wave kuy yónnee tamit lu mel ni wari eh, wala nga yónnee lu mel ni western union wala yu mel noonu eh, boo ci defee sunu tur te mooy saalihu si saalihu si boo ko ci defee moo nekk ci document yi incha allah dees na ci jot dees na ko dees na la ko defal ci liggéey bi. ànd gu ànd liggéey bi nag moo tax ñu fas yéene fu ñu ci toll fu nekk rek dees na leen ko wax ne lii lañ ci def fii lañ ci toll fii lañ ci jëm. kon ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm tey ñaan suñu borom tabaaraka taala mu nangul ñu nangu goo xam ne ni dana tax ñu bokk ca la Sëriñ Tuubaa di wax ci Masaalikul Jinaan ne bu ëllëgee de ba nit ñëpp tiit nekk ci njàqare suñu borom dana yebal ab wootekat bu woote ca penc ma ne ana ña daan liggéeyal jullit ñi ca àdduna ñu daal di wuyu fa saasu mu ne ñëw leen yéen génn ci njàqare rek taxawaay beeg lijjanti bi te daal di tàbbi na yàlla nañ ci suñu borom tabaaraka taala boole lam ñaan loole yàlla nañ ci gën a tabbi wa naa ya rabbana bil xidma lil muslimin abadan wa rahma yàlla na suñu borom xiir ci ñuy liggéeyal jullit ñi di liggéeyal alquran di liggéeyal islam di liggéeyal suñu borom tabaraka wa taala kon nag jërëgéen jëf ñoo gi leen sant bu baax di leen gërëm eh, di leen ñaanal ñaan koo xam ne nii kat ci sunu xol lañ ko tibbee te am nañ ci tamit yaakaar baax waaye tamit di sàkku ci yéen ñaan liggéey bi jéego yi muy dox mu bañ a taxaw te gën a yokk ba daj fépp ci àdduna